salaamaaleykum wa rahmatullah rabbi nii rabbi raqini rumma sha'ni zakini nuuna xablal faayi wa sini li sa jib daawati bi maa faaxa zani wa bi maa faaxa rabbi kulla zanuni barke Seexul Xadim mbokki jullit yi mbokki taalibe ñu ñëwaat tey fii ci seen émission ëttu xasaayid yi mu mel ni nag tey sunu premier numéro fii ci télé Touba TV Argentine Buenos Aires mu mel ni tey dañoo dalal sunu mbokk sunu xarit sëriñ Baye Mbacke Diène sëriñ Baye Mbacke Diène nag ku ko dégg ak ku ko xam yépp xam ko ci xasaay di ak ci liggéey sëriñ Touba bi muy fii ak di Sénégal mu mel ni émission bi nag dañ koo tàmbali tey tey ji lañ ko tàmbali waaye bëgg nañ bu màggal gi jàlle ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala mu nekk émission boo xam ne day dox maanaam muy dañuy dajale jànkatu xasaayit bépp ko xam ne yaa ngi nekk fii si dëkk bi di yëkkati xasaayit moom sa am nga ci wàll te bu soobee suñu borom subhanahu wa taala dinañ la dalal. xam naa ñu jox sëriñ mbaay Mbacke mu nuyoo ci ay bayit nuyoo ci xasaayit yi ndax saxaar moom bu jógee gaar faaw mu korne kon sëriñ Mbaye Mbacke bismillah. li anqaada mimman billasi rumtuhu manna kitaabun xasiisun sabba durri la dul xanaa liyan xaada mimman bill siirum toho mannaa kitaabun xasiisun sabba durri la dul xanaa yubassiruni baaxi unaaji wahdoo بسكر الأقي من دابه مرسل سناء ما لاومس بالفيد ما روده هباء مكباتة الشيطان والإنس والجناء إلى من له كليتي قد توجها midaadi wa aqlaami wa qad kaana lii manaa njàng mi macha allah am na solo loolu tàggal ah. yàlla nga si daje ngërëmul Sëriñ Tuubaa ku dégg njàng mi xam ne wax dëgg yàlla njàng mi ko koy jàng ku mën a jàng la macha allah waaw ah, kon suñu Baye Mbacke xam naa dañ lay bàyyi nga nuyu mm-hmm. nuyu mbokki taalibe yi bu noppee ñu doog a jotaay bi waaw asubillahi mina sheytaan rajim bisimillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare di siyaare suñ góoro mi nga xam ni moom moo yor télé bi ñuy wax Touba Argentine TV di siyaare suñ Yankooba mi nga xam ni moom moo ñu dalal ci atub xasaayit yi di ñaan liggéey bi ngeen di liggéey yàlla na ci suñ jubaat teg loxo ba fépp fu ngeen bëgg mu àgg ba suñ borom yóbbu ko ba fu kawe seen njor ci barke xasida yi ñu ngi ziare suñ mbokk jànkatu xasida yëpp yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Argentine ak ñi nekk Sénégal ak mboolem kuy dégg suñu kàddu rek ñu ngi leen di ziare te kenn ku nekk di leen jox sa wàccuwaay. waaw ah, jërëjëf sëñ Baye Mbacké. ñu ngi lay bu baax baax ñu nit. Ah, kon xam naa dañuy dugg si laaj yi rek. ñu daaw njëkkanteeg temps bi. waaw maanaam buñ la doon laaj kan mooy sëñ Baye Mbacké maanaam sëñ Baye Mbacké buñ doon wax moom mooy kan. Hmm. waaw. waaw suñu ayoba ñu ngi lay siyaare bu baax a baax a baax xam naa ne moom nit moom wax boppam <laughs> da xaw a jafe ci moom lool. waaye nag maanaam ñu jéem rek te xam ni kàddu yi moom lépp loo xam ni. jub na ci dañ koy sante suñu sang ba Serigne Saliou. lépp lu ci dëng tamit ñu ngi koy tuubaa mbooloo mi. waaw suñu Baye Mbacke jenn moom njaareem la dëkk. Euh, baayam mi ngi tudd Baay Ibrahima Dieng yaayam tudd Ndey Dieng mhm. euh, doon nit koo xam ni ci euh, taalib suñ Tuubaa la suñ borom dogal Euh, mu jaarale ko ci Serigne Saliou moo moom moo ñu yar mboolem lu nekk si ñun muy niru lu baax moom moo ko def si ñun waaye lépp loo xam ne nekk na ci ñun muy niru lu safaan ba tamit noonu xam ne suñ suñ suñ jëmm yi xeebu yi la rek waaw ñun daal xam naa ne suñ suñ suñ suñ suñ suñ wax ju gàtt daal hmm. loolu daal lañ ci mën a wax waaye nit moom xam naa wax boppam wala wax kii mooy kan moom xam naa lu jafe-jafe la ñu ngi ciy tuub baax a baax nag jërëjëf sëñ Baye Mbacke kàddu yi am na solo macha allah. Mm-hmm. ñu ngi ñaanal sëñ Saalum Mbacke yal na yàlla suñu borom yokk ay leeram te tax ñu si barkeem. amiin amiin mu mel ni sëñ Baye Mbacke bu la doon laaj. Mm-hmm. sëñ Baye Mbacke jënd kañ la tàmbalee jàng xasaayit. Mm-hmm. maanaam kañ la tàmbalee jàng xasaayit sëñ Baye waa jërëjëf suñu suñu ayoo ñu ngi lay siyaare bu baax a baax. waaw suñu Baye Mbacke kañ la commencé jàng xasaayit euh, maanaam ci takk bi nga xam ne takk nañ ko. suñu juumut quatre vingt lañ commencé jàng euh, xasida mm-hmm. te ñu ngi ko dale ca xelkom mm-hmm. ca daara ju ñuy wax xel xelkom ñu koy wax neuf mm-hmm. fa lañ commencé jàngi xasi xasida waaw waaw sëñ Baye Mbacké waaw am na macha allah xam naa kon ñu lay laaj ndax bi nga daan jàng xasaay bi foofu ci xelkom da nga daan jàng ak mbooloo wala da nga daan dajas rek wala daan nga ko jàngal hmm. xasida yi nag ñun moom comme daanaka képp koo xam ni. xam nga Serigne Saliou ak ni mu daan jàngaloo xasida hmm. ak ni mu da yare ay ay dongaam ci wàllum xasida hmm. dañ ko daan jàng. premièrement bi mooy. dañ daan jàng alxuraan ci semaine bi yëpp. ni alxames ak àjjuma nañ ciy boole xasida di ko jàng di ko tari comme ni ñuy jàng alxuraan di ko tari di si jël bind di jël wet di jël nafar euh, boole ci wax tamit sag euh, diggante timis ak gee nañuy taxaw ci daara ji di ko yëkkati euh, bu buñ julee gee ba pare ñu delluwaat ci wàllum njàngum alxuraan ma noonu lañ ko daan def daawun ko jàng nag di ko rajas dañ ko daan jàng di ko kural ñenn ñu ci nekk sëñ bi daa boole woon ay da leen boole woon ak koo xam ni moom moo leen di tàggat di leen jàngal ñu koy mokkal ak di leen ko di leen ko yëg di leen taxawu ñu di ko yëkkati waaw ak di leen wax ni daaj bi nii lañ koy jànge ak na nangam lañ koy jànge ba euh, sëriñ bi sax daana si def ay politique yoo xam ni da daan jekk-jekki woo te woo benn kuréel ca daara ja ñu koy woo di ko jàngal ca benn mu nekk xel xelkom wala mu nekk njaareem wala fu mën a nekk rek ngir euh, bëggum bëggoon xasida boo ko defee dong yi nga xam ne dañoo nekk ci daara ji tamit maanaam gën a xemme mbir mbirum xasida mi te bu paree tamit dana leen defal loo xam ni bu buñ dellusee ca daara ja maanaam dana soññaan yu bëri ci wàllum xasida mi ba nga xam ne képp ku ko fonkutoon wala nga xaw ko soobantal dana tax nga gën koo fonk waaw loolu daal xam naa ni moom wàllum jàngum xasida moom kii nañ ko ci wax waaw am na solo loolu macha allah mm-hmm. mu mel ni sànq dañoo dégg nga jàng Serigne Cissé mm-hmm. maanaam ku ko dégg xam ne njàng cosaane loolu macha allah mm-hmm. maanaam may ma ma bëggoon a xam ndax maanaam mag ñi ñëpp ngay gëstu wala am na koo xam ne fa la sa njàng basé wala mag ñi moom dangay jàng ñëpp rek waaw bu fekkee ci wàllum njàngum xasida bi sëñ Ayoba mhm. sànq xon naa la ko ci ci biir wax mhm. ñun ki ñu yar mhm. muy sëriñ Saaliw wax maanaam teg ñu ci yoonu njàngum xasida maanaam dana roy royloo woo ñoom royloo mag ñi mag ñi nag yaatu nañ waaye maanaam fi nga xam ne fi lañ gënoon a visé wu ci di leen roy mooy ku mel ni waa waa kuréelu waa kër sëriñ Masamba ñu daan jàngal sëñ mag bi ñoom sëñ may Guèye ñoom sëñ Youssou Ndaw ak maanaam képp kuy jàng xasida rek xam nga kuréel boobu boo déggee ñu ni waa kër sëñ Massamba rek sa xel dana dem ci ñooña ak euh, ginnaaw bi ba ñuy nekk daara ji suñ foofu lañu commencé njëkk a jàng muy wàllum sëñ sàmba jàng nañ ay ati ati at ginnaaw bi biñ toogee ba ay jamono xam naa takkuma euh, année ba waaye sëriñ bi yàble na ci daara ji xamal ni daa xamal ni ñu daa bëgg ñuy roy Serigne Cissé. ba booba sax isbu tarxe yi boobu ñoom ñoo ko daan jàng waaye ñoom la fa yebaloon ñu indi ay kaset pour euh, ñu koy roy euh, loola euh, ca daara jëla ma fekk ginnaaw bi ñu xam ne sëñ bi njàngum sëñ Cissé yi teel na ko ñu ñu commencé roy njàngum sëñ Cissé ba ci njàngum sëñ Mayib ñun daal xam naa ne bu fekkente ni nii ci wàllum njàng néewul duñ duñ jàng yeneen façon jàng waaye yooyu moom mooy yi nga xam ni moom lañ gën a visé wu di ko jàng ndax boo amee sëriñ maanaam mu tànnal la ni la lii laa bëgg maanaam lam la tànnal ak la nga tànnal sa sa bopp sa suur duñ bokk ah. waa des fois nag ñu jàng yeneen jàng yoo xam ne xëy na du bokk cosaanu mag ñooñu waaye li nga xam ni moom mooy suñ dëgg-dëgg jàng moom li nga xam ne moom lañ fixé ci njàng mooy njàngum waa kër Serigne sàmba ak njàngum sëñ El Hadj ak sëñ Mayib te loolu lépp génnut waa kër sëñ sàmba ndax air yooyu ci airu sëñ waa kër sëñ Massamba la juddoo waaw lu mel ni sëñ Alaaj Cissé ak sëñ Mayib Guèye ndax sëñ Mayib Guèye moomu ci kuréelu sëñ Massamba boobu la bokkoon waaw boo gisee sëñ Cissé tamit xeeti njàng mi njàng njàngum waa kër sëñ sàmba la maanaam waa kër sëñ sàmba dañ koo jàng comme jàng euh, euh, kuréel moom mu jàng ko jàng benn benn waaw jërëjëf sëñ Moulay Mbacké mm-hmm. tontu yi am na solo macha allah. Mm-hmm. xam naa sax li duf si nag bi du xaj ci cin li mm-hmm. mu mel ni ñaan nañ beneen yoon ñu toogaat ab jotaay boo xam ne dinañ gën a yaatal incha allah incha allah uh-huh. émission bi dañ koy waajalee màggal Serigne Touba gi du mën a gudd waaw xam naa nag dinañ la laaj beneen laaj boo xam ne ci xasaay yi si xasaay yi la ba tey maanaam njàngum démb ak njàngum tey ndax li ma la dégg nga jàng ko yëpp njàngum démb la. Mm-hmm. waaye tey yaa ngi dégg gars yi ñëpp ñu ngi jàng ku nekk yaa ngi génn sa air. Mm-hmm. maanaam li ma lay laaj mooy njàngum démb ak njàngum tey. Mm-hmm. maanaam njàngum mag ña ak njàngum yi léegi. ko gisee. waaw loolu de xam naa ni ma ko gisee. man moom damaa paaru bopp. comme li ma la waxoon sànq rek. man njàng mi nga xam ni moom lay moom lay moom lay roy. di ko déglu di ko di ko di ko di ko di ko maanaam visé ko. maanaam njàngum mag ñi la mm-hmm. ndax comme li ma la wax sànq nee naa li nga xam ni mm-hmm. yaa ko tànnal sa bopp ak li nga xam ne dañ la koo tànnal mm-hmm. mënuñoo yem ci àdduna te njàngum mag ña barke bi ci nekk tamit booy xool nekkut ci njàngum léegi mi waaw ndax bëri na ay air yu bees yuy génn yoo xam ni eh, day xew ak a xewi rek dafay jaar rek jàll moo tax daanaka ñun duñ ci basé wu li nga xam ne moom mooy suñu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg njàngum xasida mooy cosaan li fi mag ñi bàyyi te te te ku ne xam na ni cosaan yi wax nañ ko fu nekk maanaam ca ca malaaka yi la jóge wax nañ ni sëriñ bi euh, moom lañ dégg mu koy jàng euh, mag ñi di ko toppandoo te ban laajee sëriñ bi sëriñ bi wax na leen ni moom ca malaaka yi la ko la la ko dégloo kon loolu day doon loo xam ne lu cosaane na la jamono nag day toll foo xam ni maanaam yu bëree bare bëri day fëkk nit ñu bëri ba ban ban fàtte cosaan waaye njàngum cosaan yi moom mhm. moom mooy li nga xam ne moom moo fi moo fi nekkoon te moo fi mus a nekk te do loo xam tamit du mus a xeewi du sàppi te boo koy jàng yëg-yëg bi nga ciy am mhm. du mus a yem ak yeneen yeneen yeneen façon jàng yi xew léegi mhm. mu moom leer na naa ñëw dëgg yàlla jëm nañ bis boo xam ne moom moo waral yoon wi moo waral lépp nga xam ne mooy bisu màggal Tuubaa gi nga xam ni. mu mhm. ngi am dibéer ji di ñëw. Mhm. maanaam te ku ne màggal gi wax xasaayid yi. ndax sëriñ bi léppam ci xasaayid yi la ko dëgër. Mhm. mu mel ni bëggoon nañoo xam it nu ngeen di njàng maanaam wàllum njàng mi. ci xasaayid yi. ci bisu màggal gi. ak it ndax daal yeneen yu bees génn naag yooyu ndax ci màggal gi. <laughs> waaw. waaw suñu ayoba màggal gi moom comme ni nga ko waxee rek màggal gi moom comme ni nga ko waxee rek daanaka daa doon loo xam ni mooy suñ bus ñun murid rawatina ñun taalibe suñ Tuubaa yi ndax euh, comme ni ma la ko waxee rek lu ci nekk sëriñ bi jàngal nañu niñ koy defee ndax màggal gi bi musaana teeru ñun ba nekkee ci daara ja bu weeru feeñee dañuy yëg ni weeru feeñ na baax a baax a baax ndax mboolem luñ daan lekk dañuy gis ni soppeeku na maanaam ak yu baree baree bari yoo xam ni sëriñ bi da ko daan yónnee ci daara ji mhm. te loolu lépp doyoy doyoy màggal gi la mhm. te wax na ni maanaam baaxoo baaxoowut a jaay kër waaye nee na maanaam bis bu bis bu demoon ba amut lu lum màggali jaral na ko jaay këram kon kooku fa mu teg màggal gi sori na bu dee ci wàllum xasida yi tamit ku nekk xam ne ni sëriñ Saliou fa mu tegoon xasida waaw comme ni nga ko waxee nag ñun moom amuñu lu dul xasida depuis màggal gi ba mu commencé ba tey ba ba ba ba ba ba mu weesoo daaw ba tey sax laay wax mhm. ñu ngi waajal gug ren gi moo xam ci wàllum répétition yi mbooleem wàllum jàng mi mhm. ak air yi nga xam ne moom la ñu war a jàng mhm. ak niñ koy war a jànge ba nga xam ni murit sëñ Tuubaa yëpp danañ bëgg sëñ Tuubaa bëgg yonent bëgg yàlla bëgg noonu rek te fas yéene koo def rek te yàlla rek tax nag ngir sëriñ bi waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax tey woo mbokki taal bi yëpp kenn ku ci nekk mm-hmm. euh, euh, nga waajal ko ci sa euh, lépp rek loo xam ne luy taaral màggal gi rek nga waajal ko bu baax a baax a baax di profité waale te di wax ni maanaam xasida yi tamit dafa am lu am solo lu ci nekk loo xam ni mm-hmm. ñi koy jàng sëriñ sa Saaliw da ko daan wax maanaam njanaaw la mm-hmm. ñi koy jàng ñooy ñooy jëmm yi ñu koy diglu ñooy dunq yi mboolem li li ci ñi koy jàng mën a amee ñi koy déglu mën nañ koy amee mooy ñu teewlu ko bu baax a baax a baax mm-hmm. waaw teewlu teewlu googu nag mooy bu ñuy jàng xasida yi ngir yàlla ak jëmi sëñ bi léeg-léeg da ngay gis sorxo sorxo ji bari lool mm-hmm. coow li bëri te te bu fekkente ni nii dañoo dagg suñu yite génne suñu xaalis mm-hmm. sonn ci bis waajal ko lu bëree baree bari xamuñu fan fi ñu ko war a jaar wala nañ ko war a defee rek mën naa am ñaanuñu ko yàlla waaye lañ ci dund duñ ko am nañ koy def te sëriñ bi tax te te di ko seedal sëriñ bi rek. Mhm. waaw ñoo ngi tuub bu baax a baax nag. Ah, jërëjëf sëñ Baye Mbacke. Mhm. xam naa ni ñu ko waxee woon sant rek. Mhm. di dul si nag bi xaju si ci lii. te maanaam tey dañoo def émission bi di ko waajalee màggalu sëriñ Tuubaa gi. mu mel ni ñu ko sëñ Baye Mbacke waxee. kon bis bi nga xam ne moom lañ jub si. muy bisub te amuñu leneen lu dul moom. te moo gën beneen bis bu dul moom. si ñun. mu mel ni xam naa dañuy daal di daaneel foofu suñ kàddu. suñ Baye Mbacké ñu ngi lay sant bu baax. Mm-hmm. di la gërëm. Mm-hmm. wax digg yàlla jotaay bi xatoon na lool. Mm-hmm. waaye xam nañ tamit. itte yi nga xam ne moom nga bàyyee ba teew. ndax xam nañ ci dara. ñu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala. tànk yëpp doon ay xéewal. doon ay mbégte. ci barke weeru safar bi. xam naa kon mbokki taalibe yi ñu wàcce foofu suñ kàddu. di wax ni nag. ñu ngi siyaare waat bu baax a baax. di siyaare baax suñ góor a sekk. di siyaare baax sunu xarit sunu mbokk sëñ Gam yi mm-hmm. di siyaare baax a baax di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala télé bi nga xam ne mooy télé Touba TV ak Big Deal in house suñu borom subhanahu ni Lamp Fall suñu borom defal leen xéewal yu bari yombal leen lépp di jaay yeesu léewum bi ñu dila xasara fokk lu maay surtout te sara barke Seexul Xadim ak xasaay di mm-hmm. képp kuy jàngal xasaay ci dëkk bi na nga ni sa place mi ngi fi te bu soobee suñu borom subhanahu wa taala dina la woo nga ñëw ñu ànd waxtaan xasaay hmm. di waxtaan Serigne Touba bi jaay Cheikhul Khadim ilan wa rahmatan wa barakatan barke Cheikhul Khadim jaarale ko ci Serigne Saliou. moom moo ñu yar. mboolem lu nekk si ñun muy niru lu baax. moo ko def si ñun. waaye lépp loo xam ne nekk na ci ñun muy niru loo sawaan ba tamit ñoom xam ne suñ suñ suñ jëmm yi xeebu yi la rek. waaw ñun daal xam naa ne suñ suñ suñ suñ suñ suñ wax ju gàtt daal. Mm-hmm. loolu daal lañ ci mën a wax waaye nit moom xam naa wax boppam wala wax kii mooy kenn moo xam naa lu jafe-jafe la. ndeysaan nit ñi tuut baax a baax la. Mm-hmm. jërëjëf sëñ Baye Mbacké kàddu yi am na solo macha allah ñu ngi ñaanal Serigne Saliou Mbacke yal na ko yàlla suñu borom yokk ay leeram te tax ñu si Mbackeem mu mel ni Serigne Baye Mbacke bu la doon laaj Serigne Baye Mbacke génn kañ la tàmbalee jàng xasaayit maanaam kañ la tàmbalee jàng xasaayit Serigne Baye Mbacke génn waaw jërëjëf suñu ayoo suñu ayoo ba ñu ngi lay siyaare bu baax a baax waaw Serigne Baye Mbacke kañ la commencé eh, jàng xasaayit maanaam ci takk bi nga xam ne takk nañ ko suñu juróom quatre-vingt-quinze leen commencé jàng xasida te ñu ko dalee ca Xelkom mm-hmm. ca daara ju ñuy wax Touba Xelkom mm-hmm. ñu koy wax neuf mm-hmm. fa lañ commencé jàngi xasi xasida waaw si sëñ Mbaye Mbacké waaw am na solo macha allah xam naa kon ñu lay laaj ndax bi nga daan jàng kasaay bi foofu ci Xelkom da nga daan jàng ak mbooloo wala da nga daan dajas rek wala daan nga ko jàngal Serigne Saliou waaw ñu lay waaw xasida yi nag ñun moom comme daanaka képp koo xam ni xam nga Serigne Saliou ak ni mu daan jàngaloo xasida mhm. ak ni mu daan ni mu yare ay ay dongaam ci wàllum xasida mhm. dañ ko daan jàng mhm. premièrement bi mooy dañ daan jàng alxuraan ci semaine bi yëpp mu ni alxames ak àjjuma dañ ciy boole xasida di ko jàng di ko tari comme ni ñuy jàng alxuraan di ko tari si jël bind di jël wet di jël nafar euh, di boole ci wax tamit sa euh, diggante timis gee dañuy taxaw ci daara ji di ko yëkkati mhm. uh, bu bu jullee gee ba pare ñu delluwaat ci wàllum njàngam alxuraan ma mhm. noonu lañ ko daan def daawul ko jàng nag di ko rajas mhm. dañ ko daan jàng di ko kural ñenn ñu ci nekk sëñ bi daa boole woon ay da a boole woon ak koo xam ne moom moo leen di tàggat di leen jàngal ñu koy mokkal ak di leen ko di leen ko di leen taxawu di ko yëkkati waaw ak di leen wax ne daaj bi nii lañ koy jàngee ak nangam lañ koy jàngee ba uh, sëriñ maanaam gën a xemmeen mbirum mbirum xasida mi mm-hmm. te bu pare tamit dana leen defal loo xam ni bu buñ dellu see ca daara ja maanaam dana soññaat ñu bëri ci wàllum xasida yi ba nga xam ne képp ku ko fonk toon wala nga xaw ko soobatal dana gën tax nga gën koo foofu waaw loolu nag xam naa ni moom wàllum jàngam xasida moom kenn waaw am na am na solo macha allah mm-hmm. mu mel ni sànq dañoo dégg nga jàng Serigne Cissé mm-hmm. maanaam ku ko dégg xam ne jàng cosaane la loolu macha allah maanaam may ma ma bëggoon a xam ndax maanaam mag ñi ñëpp ngay gëstu. Mm-hmm. wala am na ko xam ne fa la sa jàng basé. Mm-hmm. wala mag ñi moom dangay ngay jàng ñëpp rek. Mm-hmm. waaw bu fekkee ci wàllum jàngam xasida bi dañu aywa. sànq xam wax. ñun ki ñu yàgg. muy Serigne Saliou. wax maanaam teg yoonu jàngam xasida maanaam dana roy royloo royloo ñoom royloo mag ñi. mag ñi nag yaatu nañ waaye maanaam. fi nga xam ne fi lañ gënoon a visé wu ci di leen roy mhm. mooy ku mel ni waa waa kuréel waa kër Serigne Massamba mhm. ñu ñoom sëñ May Guèye ñoom sëñ Youssou Ndaw ak maanaam képp kuy jàng xasida rek xam nga kuréel boobu boo déggee ñu ne waa kër Serigne Massamba rek sa xel dana dem di ak euh, ginnaaw bi ba ñu nekk daara ji su foofu lañ commencé njëkk a jàng muy wàllum Serigne Massamba jàng nañ ay ati ati at mhm. ginnaaw bi bi ñu toogee ba ay jamono xam naa mm-hmm. takkuma euh, année ba waaye mm-hmm. sëriñ bi yàlla na ci daara ji xamal ni daa xamal nañu daa bëgg ñuy roy mm-hmm. sëriñ Cissé ba booba sax is bu line in. néewul duñ duñ jàng yeneen façon jàng waaye yooyu moom. line e. moom lañ gën a visé wu di ko jàng. ndax boo amee sëriñ maanaam mu tàngal la ni la lii laa bëgg maanaam lam la tànnal la nga tànnal sa sa bopp sa suuf duñ bopp. waaw ah, waaw des fois nag ñu jàng yeneen jàng yoo xam ne xëy na du bokk cosaanu mag ñooñu waaye li nga xam ne moom mooy suñu dëgg-dëgg jàng moom li nga xam ne moom lañ fixé ci njàng mooy njàngam waa kër Sëriñ Masamba ak njàngam si Mayit te loolu lépp génn si kër sëñ Massamba ndax air yooyu ci air waa kër sëñ Massamba la juddoo waaw lu mel ni sëñ Awa Cissé ak sëñ Mayit Gueye ndax sëñ Mayit Gueye moom ci kuréelu sëñ Massamba boobu la bokkoon mi njàng njàngum waa kër sëñ Massamba la maanaam waa dañ koo jàng comme jàng euh, kuréel moom mu jàng mu jàng benn benn waaw jërëjëf sëñ Mbaye Mbacké tontu yi am na solo macha allah xam naa sax li duf si nag bi du xaj ci li mm-hmm. mu mel ni ñaan nañ beneen yoon mm-hmm. ñu toogaat ab jotaay boo xam ne dinañ gën a yaatal ndax tey jii mm-hmm. émission bi dañ koy waajalee màggal Serigne Touba gi du mën xam naa rek dinañ la laaj benn laaj boo xam ne ci yi si xasaay di la tey maanaam njàngum démb ak njàngum tey ndax li ma la dégg nga jàng yëpp njàngum démb la waaye tey yaa dégg gars yi ñëpp ñu ngi jàng ku nekk yaa ngi génn sa air mm-hmm. maanaam li ma lay laaj mooy njàngum démb ak njàngum tey mm-hmm. maanaam njàngum mag ña ak njàngum gone yi mm-hmm. ko gisee loolu de xam naa ma ko gisee man moom damaa baar boobu nga xam ni moom lay lay lay roy di ko déglu di ko di di ko di di ko maanaam visé ko maanaam mag ñi la ndax comme li ma la wax sànq nee li nga xam ni yaa ko tànnal sa bopp ak li nga xam ne dañ la koo tànnal mm-hmm. mënuñoo yem ci àdduna te njàngum mag ña barke bi ci nekk tamit booy mm-hmm. xool mm-hmm. nekkul ci njàngum léegi mi waaw ndax bëri na ay air yu bees yu génn yoo xam ni eh, day xew ak a xewee rek dafiy jaar rek jàll moo tax daanaka ñun duñ ci basé wu li nga xam ne moom mooy suñu dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg njàngum xasida mooy cosaan li fi mag ñi bàyyi te te te ku ne xam na ni cosaan yi wax nañ ko fu nekk maanaam ca ca malaaka yi la jógee. ndax wax nañ ni sëriñ bi mhm. euh, moom lañ dégg mu koy jàng mhm. euh, mag ñi di ko toppandoo te ban laajee sëriñ bi sëriñ bi wax na leen ni moom ca malaaka yi la ko. dégloo. kon loolu day doon loo xam ne lu cosaane la. jamono nag day toll foo xam ni maanaam yu baree bare bare day fëkk nit ñu bëri ba. ban ban fàtte cosaan waaye jaamu cosaan bi moom. Mhm. moom mooy li nga xam ne moo fi moo fi nekkoon te moo fi mus a nekk. te du mooy doon loo xam tamit du mus a xewi du te boo koy jàng yëg-yëg bi nga mhm. a yam ak yeneen yeneen façon jàng yi xew léegi. Mhm. Hmm. mel ni loolu moom leer na naa ñu wax yàlla. Hmm. ñu jëm nag bis boo xam ne moom. Hmm. moo waral yoon yi. moo waral lépp. nga xam ne mooy bisu màggal Tuubaa gi nga xam ni mi ngi am dibeer ji di ñëw. maanaam te ku ne màggal gi wax xasaayid yi ndax sëriñ bi léppam ci xasaayid yi la ko dëgër hmm. mu mel ni bëggoon nañoo xamit lu ngeen waajale jàng maanaam wàllum jàng mi ci xasaayid yi hmm. ci bisu màggal gi hmm. ak ndax daal yeneen yu bees génn naag yooyu ndax ci màggal gi waaw waaw suñu ko màggal gi moom comme ni ko waxee rek daa doon loo xam ni mooy suñ bés ñun ndax euh, comme ni ma waxee rek ci nekk sëriñ bi jàngal nañu ni ñu koy defee ndax teelu ba nekk ci daara ji bu weeru feeñee dañuy yëg ni weeru feeñ baax a baax a baax ndax wala mu daan lekk dañuy gis ni soppeeku maanaam ak yu baree baree bari yoo xam sëriñ bi da ko daan yónnee ci daara ji euh, te loolu lépp doy doy màggal gi la te wax na ni maanaam baaxu baaxuwut jaay kër waaye nee na maanaam bis bu bis bu demoon ba amul lu mu màggali yi na ko jaay kër kon kooku fa mu teg màggal bi sori na bu dee ci wàllum xasida yi tamit ku nekk xam ne ni Serigne Saliou fa mu tegul xasida waaw comme ni ko waxee nag ñu moom amuñu lu jub lu dul xasida depuis màggal gi ba mu commencé ba tey ba ba ba ba ba ba ba mu weesoo daaw ba tey sax laay wax mhm. ñu ngi waajal bu ren gi moo xam ci wàllum répétition yi leen wàllum jàng mi ak air yi nga xam ne moom lañ war a jàng ak niñ koy war a jàng ba nga xam ni murid Sëñ Tuubaa yëpp danañ bëgg Sëñ Tuubaa bëgg yonent bi bëgg yàlla bëgg noonu rek dafa séené koo def rek te yàlla rek tax na ngir sëriñ bi waaw ñu ngi koy waajal bu baax a baax a baax tey woo mbokk taal bi yëpp kenn ku ci nekk mhm. euh, euh, nga waajal ko ci sa euh, lépp rek loo xam ne luy taaral màggal la rek nga waajal ko bu baax a baax a baax Euh, di profité walla te di wax ni maanaam xasida yi tamit dafa am lu am solo lu ci nekk loo xam ne mhm. ñi koy jàng mhm. Serigne Saliou da ko daan wax maanaam jalaaw la mhm. ñi koy jàng ñooy ñooy jëmm yi ñi koy déglu ñooy dunq yi mboolem li li ci ñi koy jàng man a amee ñi koy déglu mën nañ koy amee mooy ñu teewlu ko bu baax a baax a baax waaw teewlu teewlu boobu nag mooy bu ñuy jàng xasida yi ngir yàlla ak jëm sëñ bi léeg-léeg da ngay gis sorxo sorxo ji bari lool mhm. coow li bëri te te bu fekkente ne nii dañoo nag suñu yitte génn suñu xaalis mhm. sonn ci bis waajal ko lu baree baree bëri mhm. xamuñu fan fi nga ko war a jaar wala nañ ko war a defee rek mën naa ñaanuñu ko yàlla waaye liñ ci dund duñ ko am nañ koy def te sëriñ bi tax te te di ko seedal sëriñ bi rek waaw ñooñu ngi baax a baax nag ah, jërëjëf sëñ Baye Mbacke xam naa ni ñu ko waxee woon sànq rek li dul suñu nag bi xaju si ci lii euh, tey dañoo def émission bi di ko waajale màggalu Serigne Touba bi mu mel nii nu ko sëñ Baye Mbacke waxee kon bis bi nga xam ne moom lañ jub si muy bisu Serigne Touba bi te amuñu leneen lu dul moom te moo gën beneen bis bu dul moom si ñun mu mel nii xam naa dañuy daal di daaneel foofu suñ kàddu sëñ Baye Mbacke ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm wax yàlla jotaay bi xatoon na lool waaye xam nañ tamit itte yi nga xam ne moom nga bàyyi ba teew nañ ci dara mu ngi ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala mm-hmm. yëpp doon ay xéewal mm-hmm. doon mm-hmm. bi xam naa kon mbokki taalibe yi ñu wàcce foofu suñu kàddu di wax ni ñu ngi siyaare waat bu baax a baax di siyaare baax suñu góor a di siyaare suñu xarit suñu mbokk suñu Gàmbi yi di siyaare baax a baax di ñaan yàlla suñu borom subhanahu wa taala télé bi nga xam ne mooy télé Touba TV ak Big Deal in house suñu def yokk leen def leen ni làmp faal suñu borom defal leen xéewal yu bari yombal leen lépp bi jaay yaa si doom bi ñu foo sara fokk lu maay sa doom tey sara barke Seexul Xadim ak xasaay yi képp kuy jàngal xasaay nag danañ ci dëkk bi na nga xam ni sa place mi ngi fi te bu soobee suñu borom subhaanahu wa taala dinañ la woo nga ñëw ñu ànd waxtaan ak xasaay yi waxtaan ak Sëriñ Tuubaa bi jaay Seexul Xadim yi daan war a xamante ne wa barakatan barke Seexul Xadim